Tu as considéré Ousmane Sonko comme un frère de sang et tu dis avoir fait pour moom loo xam ne bu ko police yëgoon cour d'assises nga jëm. amul solo. lan nga ko defaral un crime de sang. amul solo euh, yow Maymuna Maymuna <laughs> muna lan nga ko defaral Maymuna est-ce que mën nga dégg lu ma la wax. à l'heure où je te parle est-ce que il fait minuit moins cinq est-ce que am na fenn fu takk bi Dakar heure bi dama lay laaj yow. je sais pas j'étais en direct su ma génnee. yaa ngi direct laajteel gaañ am na lu xew bi Dakar tey le ministre de l'intérieur a dit la plupart des gens qui sont meneurs ont été appréhendés et ils menacent même de poursuites à l'étranger il faut arrêter on ne peut pas prétendre conquérir un pouvoir par la manipulation les coups bas et tordus et le mensonge ça ne marchera pas dañu fekki dem ak bërki dem. mais sacrifice boobu lan la. sans pour autant Maïmouna je me pour le peuple sénégalais je me suis battu pour le Sénégal et je l'ai fait à mes risques et périls aujourd'hui nee naa la waxuma fii wala fële wante Dakar ñun one est parce que ñun ñooy borom Dakar loolu mooy am loolu la yàlla dogal yàlla amaana mën nañu bañ a may yenn yi ku ko yàlla may nangul nañ la ko wante lu ñu yàlla may biir Ndakaaru ci mën-mën ci kattan wax dëgg yàlla na nga ñu ko nangul